ne xam na ne tukki mënta ñàkk moo tax SBB seen Brésil business ca São Leopoldo ñëw ak xarañte ci wàllu bii avion song ko nag wàññi leen ko ba noppi taxawu leen bii avion moo xam Ethiopian Airlines wala Emirates wala Turkish wala Iberia wala TAP Portugal di leen xamal ni jàppandi na noonu ca SBB Brésil ngir foo bëgg dem ci àdduna rawatina ku bëgg a jóge Brésil ñëw Sénégal wala jóge Sénégal jëm Brésil mën ngeen a jokkoo ak SBB ci numéro yii 519 888 04 68 wala 519 750 47 57 SBB moo leen di ñaanal ngeen tukki ci jàmm te dellu si si jàmm jàmm rek ci la SBB di dox fexe ngeen di tukki nu mu leen neexee tukki ba yomb lool ci yéen SBB moo ñëwaat di leen yëgal ni képp ku bëgg a def transfert d'argent ak virement bancaire yónnee xaalis si Orange Money Crédit Sénégal wala sax fay facture courant wala ndox wala fay wifi gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bii ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bii 519 81 88 04 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse. xas nañu. ca ca ca xasida yi rek. ci xasida yi rek. lan mën a xam sëriñ bi. ci xasida yi rek. kenn ku mën a bëggale. ci xasida yi rek. xasida yi sax bu sawar. asalaamaaleykum téléspectateur Rafah TV amati nañ mbégte ak banneex saa soo waxtu wi jotee seen émission bi di ahlu xasida ñu baaxoo ko ànd ak yéen ci samedi bu nekk di ci dalloo ay jàngkat tey nag ñu dalloo jàngkatu xasida di wuyoo ci turu Serigne Mara Lo ñu fas yéene seq ak moom waxtaan ci ay jaar-jaaram ci jamono ji ñu nekk ak ji mu passé Euh, bala ñuy xus ci biir waxtaan bi dañu koy jox mu daal di nuyoo ak téléspectateurs yi nga xam ne ñooy euh, topp Rafah TV balay loolu dañuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér Serigne Mara Lo bismillah dalal ak jàmm ñu bàyyi la nga daal di nuyoo ak mbokk yi. wa rahmatullah ngi nuyoo soxna maam Boussa ñu bu baax di siyaare TV gi yëpp ñu fi fekk. di jiite ci siyaar bi ak nuyoo bi yëpp Cheikh Mouhamadul mun Mbacké di ko ñaanal Sëriñ Tuubaa dolli kàttanam mu dolli fa yàgg téwér barke xasida yi di ñaanal Sëriñ Saliou Lo xalifa Cheikh Mourab Solo suñ borom gudd fan tóori ay cër barke xasida yi di siyaare mboolem ñi ma àndal ñi ñëpp ak mboolem ki seetaan émission bi bàyyi ma maa ngi siyaar ñëpp di la baax soxna Mame Bousso jërë ngeen jëf jërëjëf Serigne Mara ci nuyoo bu am solo bi tey moo ñu war a gunge seen émission Ahlu Xasida eh, di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ko accompagner mu ñëw ci émission bu di leen nuyu ñoom ñëpp benn par benn ca balay loolu dag ñu yëkkatil xasida nuyoo ko mbokk yi nga xam ne ñoo lay topp ci rafati bi ñu door a dellu si waat ci waxtaan bi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yabudu kullillaha rabbal alamin insaaho bi xidmatil xaadil amin yabudu kullillah rabbal alamin insaaxo bi xidmatil xaadil amin wujudu sil xidami wal baxaay xat xaddamal muxtaara sertixaay mu xaliful xalxi akaana ahmada fawxal jamiixi waasalal kamada mulkul si laxoo xiyaamu sarmada bi nafsihi xaada bihi li ahmada wahdati sil qudraati wal iraada xaadat li ahmadal li si li ahmadal muxtaari min silxilmi wasil xayawaati sab xodoo na sulmi daa nabiyu daa nabiyu dil xaali si samuxi العظيم هدى الذي بصر والكلام لا غدا مختار لا يلام خاسخي خبادة لمن خبا بسول fi mawlidi muxtaari xabdi rasuul asxaabana duniyaa wa uxraa laa xoo bi wala ilaaha illallaah saalika farlu laay sil fadlil xasiim نسأله عبله خاس النسيم عبد والله رب العالمين إن ساءه بخدمة الخادم الأمين آمين يا رب العالمين بارك سنتوه jërëjëf Serigne Mara njàng am na solo neex na lool macha allah ayca ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Mara Lo jombul ñi nga xam ne ña lay topp ci Rafah TV bëgg nañoo xam kan mooy Serigne Mara loo xasida waaw soxna maam Bousso Mara Lo di as ndongo su xeebu la ah, ju bokk ci waa kër Cheikh Mor Absolo Cheikh Mor Absolo moom Serigne Touba yàlla dimbali ma nag def ma ab jànkatu xasida ci loo xam ne xëy mën naa sax nekku sans sabab lu suñ borom la rek as nangu si xeeb la daal di jànkatu jaar naa ci daara sama baay ma yoroon daara ma jaar fa jàng fa alxuraan ba wàcc ñaari yoon jàng xam-xam tamit soog a continuer ci métier mi ak ñam xasaay mi. dañu bëggoon a xëy na nag at bi ko tàmbalee moom mënuñu koo jàpp dëgg-dëgg ndax boobu day nekk ay xale ay tuttànk lool ndax dañoo xàmme fekk ci daara ji suñu way jur di ko defloo suñu mag ak jëruñu daara ji bu timis jotee mu leen di jàngaloo timis dañuy jàng ba heure yalwaan jot ñu soog a ñaan dem yalwaan amul woon jëla nag seeg su doon koy def bi ma xàmmee fekk ñu koy def ma daa nekk seen ginnaaw di dem seen yoon yi di ndox ak bépp yoon bu ñuy def ba yàlla def ma ma jaar ci doonu jànkat. Mm-hmm. gis nga yëkkati fii air am solo léegi ci ndorteel émission bi ñu bëggoon a xam sëñ Mara kan lay roy wala dafa am air boppam wala dafa am ci mag ñi kenn koo xam ne moom nga taamu di ko roy. bi may doorum njàng nag daan naa faral di roy sëñ Fallou Ndiaye ak sunu baay Ablaye Seck. waaye nag ak si Moussa Seck waaye ci suñu xayma bi daal laa xamem njàng ne ndax moom la ëpp lu ma roy yaakaar naa roy naa ak lu mu gàtt gàtt fukki atak ak nangam waaye depuis 2014 ba léegi moom beru na te sama heure bopp rek laay jàng muy guddi gu may fanaane muy lu ma mën a jàng sama yëf bopp rek laay jàng ba ci. tax dañuy faral di gis jàngkat yi ñu ci bëree bëri boo leen laajee dañ naan sëñ Ablaye Seck wala sëñ Xaadim Gueye lan moo waral ngeen tànn jëmm yooyu di leen roy dafa neex a njàng mi rek. waa xam nga nag suñu xaalim bi lañ dëkkal ndax yaa naa Moussa Seck laa njëkk roy bu Thiès ginnaaw laa soog roy suñu xaalim ñu bëri na foog ne ne njàngu suñu xaalim daa neex a roy wala dafa gën a sedd waaye foog naa li may faral di wax lu bari njàngu xaalim gi bokk na jàng yi gën a métti ndax moom ci façon bi muy jàng daa compliqué lool lool lool loolu nag ki koy roy te fa yéene ko jox àq ji mu ko jox moom moo koy xam su dee ne danga ko roy ci jamono jii muy jàng nga xam ne mën na ne li mu war a def lu ci bare bare def na ko xaw a jëm mag daanaka fi mu nekk day jàng ni mu ko mënee rek bu dee loolu mën naa neex waaye mën naa neex roya bu dee nam doon jàng ci ndorteelam jàngu xay ngir gis ma njàngu ko gën a métti. ñoo xam moom benn la am wala am na yeneen air yoo xamante ni mi ko ci boole wala ci benn bi nga doon yëkkate rek ci nga yem. waaw déggoo wax la ne la man damaa fanaan guddi ba bëset barki démb rek bi may jàngi fii Mbour jàng naa bëset laal airu kenn te ba ko dalee def ak léegi na yaakaar naa ne 2014 ba léegi. danaa jàng ba bët set du ma laal eeru kenn wala moo ko laal damay neex rek waaye sama eer moom macha allah suñu borom jox na ma ci loo xam ne <laughs> ndax yow sëñ Mara moom ma ngi am ay programme yu génn ci dëkk bi lu mel ne eh, li wër wala ci Afrique wala dafa programme dafa yem ci dëkk bi di Touba rek. waa ñi ngi sant bu baax na wax dëgg yàlla ñi ngi jàngi ci dëkk yi nga xam ne wër na Touba Sénégal mu mën naa ne fu ci fu ci bare bare bare dem nañ fa. xëy na nag génn guñ ko waaye Sénégal fu bare bare bare dem nañ fa di fa di fa di fa jàng ba barki dem lañ fa jógee te suba incha allah dañ war a génnaat moom suñu toit dimbali nañu macha ñu ngi ñu ngi yëngu bu baax a baax moom. naka nga gisee programme yi nga xam ne antox Touba ak feneen mooy yi nga xam ne day génn dëkk bi a ah, naka nga gisee yi ngay am ci biir dëkk bi di Touba ak yi ngay am ci biti bi. waaw bu dee njàng moom njàng ñooy yem mais nag bu dee jàppandi am na espace tuuti ndax li olof di wax ne garabu mango fa muy ñore. xëy na duñ ci xeer cent pour cent njàng mi tamit dafa demee noonu ndax Touba gi daanaka dañoo xaw a mandim njàng boo génnee ne ni lay joxe itti ji ak ni lay teeroo ni nangoo sonn ci yow ak ni ñu koy dundee par rapport ak fii daal ndax fii daanaka tamit doo leen ko yedde ndax dafay dafay xaw bari ndax mënoo tëdd tëddeegum jàng moo waral daanaka am na nag euh, am na espace. Ah, maanaam tamit euh, ndax ci biti la ëppee ndax boo xoolee li Touba est-ce que du tamit dañoo gën a jël njàngum kuréel def ko bëgg-bëgg ah, wala njàng mi moo demeewul noonu. waa xam nga Touba sax doo noppalum jàng moom da nga fiy jàng guddeeg bëccëg wante ci xeetu jàppin moom ah, moom espace mais Touba bëgg nañ jàng aw lool mën naa ne jàng yi fi mën am rek ci jàng aw lay lay déparé leneen lu fa ñëw ci biir njàng aw mi lay dugg. mais Ndiaw euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy idée ji daal waaw ñoom ñoo koy ñoo koy mujjee waa. da ngaa bokk ci jànkat yi nga xam ne dañoo tàng loxo di laaj euh, xaalis bu bari ba tax euh, bariwul fii programme wala. fii fii dima fi noppalu. Touba Touba de xanaa mënumaa toog ñaari fan te jàngi ma danaa laaj nag moom ndax defe naa ne bi may laaj boobu dix-huit ans laa am tey ci ndigal laa ko teg ndax sama waajur moom moom moo ma ko sant mhm. waaye nag. fi mu nekk dañuy laaj te dañuy bu baax a baax ndax métier la comme métier yëpp daal ku ko gëm rek Sëriñ Tuubaa mën na te def loo ci laaj ñu jox loo ko incha allah. Mm, laaj bu bëri bi moom ba bu yàggee du tax programme yi wàññeeku wala ci njàng mi la bokk ko. waaw xam nga laaj bi moom mënut wàññi programme ndax nit ki da ngay am fulat ci li ngay def nit ki mënta def bisam bind ay leetaram joxe luyee baas luyee ay siis luyee rajo jànkat bi ñëw mu bañ mu bañ koo jox dara.

waaw lu ci nekk rek ba may jóg laa koy programme ndax su fekkee dama ne la dama lay jàngal yow ne la exemple da ma jox téeméer nga d'accord ci ma d'accord ci xam naa ne téeméer bu kon féet na boor waaw man téeméer boobu rek laay def ne moom laa fay am bu ma ñëwee jàng la ma nit ñi jox ma surprise lay doon ci man waaw du ma fa yaakaar lu ma nit di jox man li ma wax ak yow laa laay séntu su fekkee nag sama relation ak yow ak na ci ma jàng may la su may jóg di dem day fekk man ma man ko fay sa bopp oto bi ma yóbbu ma indi si bañ faa yaakaar ñaar dërëm lu ma fay nekk lu ma fekk mu doon surprise ci man ndax Serigne Mara moom ci njàngum xasida mi rek la yem dafa am eh, métier moo xam ne à part njàngum xasida ci nga yëngu ah, maanaam ba nit xam la ci nga boole ko njàng mi wala nga yem ci njàng waaw am naa métier nag njàng mi moom macha allah suñ suñ tubaab bu baax a baax waaye nag yàlla def na tamit métier téer laa yor. ah lan moo tax jàngkat yi taamu métier tailleur koo ci laaj métier tailleur bëgg àdduna gi la bëgg di sañse la a ah, wala lan moo ko wala yomb gi la ndax damay faral di dégg tailleur yi ñu naan li gën a diis ci li ñu yëkkati ab si lay doon lu waral lool. xëy na nag am na dañu koy tooñe wante man gis naa jàngkat yoo xam ne ay maçon lan gis naa jàng ay ministre lan waaw ah, gis naa ci ku nekk ak la muy liggéey rek ay plombier yëpp am na ci na nag man moom. métier téye daal neexoon na ma. ak day tax a gën a yombal solo ndax yéen jàngkat yi ni ma koy faral di waxee mel ne àdduna da leen a xaw daal sonal daal ci wàllum solo geeg yooyu est-ce que looloo ngeen dugg ci métier téye. tax àdduna sonal lañ ndax it nit ñi des fois dañ am foofu lance erreur lii ñuy def moo laaj civilisé laaj fonk ko ak jox ko cër te ay nit li ma la wax léegi rek luy ay seen i baas luy rajo woo mbooloo yow nga dikk ñépp war déglu yow kese nga wax. nga xam ne du ngóor a du ndam maanaam lu la yàlla defal rek la war ngaa mën a melow waaw woo fa dikkee boo xam ne boo dikkee tamit da nga mën a méngoo ak baas et nga mën a méngoo tamit ak li li ngay def xasaay di ngay def da ngeen di mën a méngoo. est-ce tamit méngoo gi yenn saa yi du leen yóbbee ci lu ngeen saa yi dañuy dem fu nekk ci programme yi dañuy faral di gis jàngkat yoo xam ne da lay leer na der bi ñu yor moom doonul seen bos. dañuy dugg ci ay xeesal ay roccituñ euh, bay solo noo xam ne sax daanaka bu muy tuur sax da leen di jaawale ak ñun ñi loolu moom ci njàng mi moo laaj pour gën a ami soppe wala àdduna la rek. waaw ah, li ma laaj ñu ma sawar naa si ndax dafa doon loo xam ne far di ko wax ci ay jataay yu bari ñi ci war a wax rek ñoo ci war ndax ñoo xam ne saa bu ñuy jël référence ñoom lañ jël référence muy sëñ Ablaye Seck sëñ Xaadim Guèye sëñ Fallou Ndiaye man may tuddi tur ñoom ñoo nga xam ñoo ñu féete mag ñoo war a toog wax ci carrément li ci nekk bari na ndax métier mi nga nekk muy. métier am xaw ma journaliste lañ koy xaw ma yow xëy na yaa ngi koy doxal ni nga ko war a doxalee waaye sa nga gis ci loo xam ne nit doxale ko te bu nga ko tuddee dañ la ci boolwaale yéen njàng ne loolu da ci am dañ ci gis ñoo xam ne nañ ci mel jaaduut fañ cay dem duñ leen fa woo nanay solo du soli nu góor te li olof naan bul bëgg dëkk ba dem fa bu la dëkk ba bëggee maam nit ki fépp foo dem na fekk ñu soxla la lépp looy sool na fekk mu daggante ci yow waaw booy jàngi nga jàng te yàlla tax organiser sam jàng mais bëri na ci ñuy tudd na ay jànkat mën naa sax da du neex wax ndax xasaayit kenn moom ko waaye mën naa ne daal dañ leen tudd rek euh, ci jàng waaye defe naa ne la jàng soxla ñëw. est que tamit li koy waral warul nekk ne njàngum xasida dañ ko war a tarbiya wu jaar fi nga war a jaar lu ci mel ni sëñ Fallou Ndiaye bi nga dégg su la waxee ay jaar-jaaram jaar-jaar yu métti lay doon sëñ Xaadim gay noonu est-ce que tamit ñenn ñi puukaréew bi bi ak gis nañ ni jàngkat yi sañ sa beeg yooyu loolu moo leen ci dugal ba tax ñu ci boole lu ci bokkut. fi doon jàng bokk na ci li gën a ñàkkum noof laay ci kaw suuf mën mi ak yow awoon na ay at yu bëree bëree bari maa ngi siyaar sax sama sëriñ si la laa njëkk aw nekkoon ci jëwri daara ji bu ma fa ma aw sëñ Modou Mbengue maa ko siyaar bu baax moom it fa jógee ma aw sëñ Bàcc Diop te ci nekk ànduma yow ay ñett at ak ñaari at ay at yu bëree bëri da ca lu nekk boo ci jógee daanaka solin gi moom mën na nax nit mais yow sa jëmm bi nga xam ne àdduna ñoru la daal li ngay def di nga di nga xam di nga ci xam lu bari daal te di nga xam tamit solo ci dana tam loo ci xam waaye dama ne la maanaam am na ci ñoo xam ne ñoo tax laaj yi di am te ñooñu mën naa ne fi ne boo leen fekkoon seen njàng seen njàng di mu noonu dañuy dégg ne maam bu sa def na bis fii rek doo leen xam sax duñ la xam ñu feex ba dugg fi fii buñ xoolee sërone bi baax ñu daw dugg wax li ñuy wax wala ñu gis nitu àdduna topp ko di tàgg te du tee bu ñuy wax danaan jàng xasida ndax dañu sol li ñuy sol ñun kaalaw li ñuy kaalaw di wax li ñuy wax mu jàng xasida mi ñuy wax su boobaa nag dañuy àtte jànkot xasida waaye loole ñoom suñ xaayam gi ñoo ci war a wax te bañ cee xool lenn lu leen cay fekk ndax seetaan naa suñ xaayam gi di wax ne tey ma ci waxoon bu ma xëyee ñu dal sama kaw dëgg la waaye il faut ñi ci war a wax wax rek. Mm-hmm. ak mokkal gi tamit daa mel ne dem gëstuwaat bu baax xasida yi ak euh, jàngiwaat arab pour mën a xàmmee arab dina ci baax ndax man dem naa ci ak màggal sama njàng soriwut waaye dégg naa jàngkat boo xam ne ci salle bi ñu nekk muy jàng. dafay damm bëy di bu baax a baax suma jumu xasida ak si ndii di euh, la doon jàng te xasida googu bokk na ci yi gën a gën a neex a xam nga ci dara euh, lan moo waral loolu ñàkk jàng la tëb tëb dugg ci rek ba tax ngay yàq araf yi loolu noo ko gisee. xam nga foo gisee ku yàq xasaayit gis nga lu mat fukk ñu ko ñuy jàng te te duñ yàq li ma la wax moo ci nekk ñi ko def ñi ko fas yéene def métier def seen adduna bépp ñu ngi koy jox itte ñu koy jox itte bu baax a baax da dina nag dafa ñëw ngir dañ ne saal bi kat baax mu fas ñëw ngir amul xaalis rek te xam ne ñii muy jàngal xëy na sax boo dee xool comme li nga wax rek ña cee ña cee xam la muy wax bariwul ñoom ñoom xaalis bari la ñuy xool daanaka ñoom ñooy yàq ñooy yàq jàng waaye ku mel ne suñ jëwri ay suñ xaayam gi ak ñi fi nekk ci ci kanam ñu ci baree bari boo di déglu mboolem jàng ko defan ko war lu ci maxaaraj dañ koy génnee dañ ko war a jàng lañ koy jànge da di nag bépp métier moo gisee am nañu nekk ci biir ñoo xam ne doxewuñ ci nu war daal waaye il faut que nit ñi tamit ak yéen ñii seen métier mi ngeen nekk ngeen jéem ñoo jéem a ràññee nit ñooñu daal xam ne am na ci ñëpp ñoo xam mhm. Mhm. jërëjëf Serigne Mara ci leeral yu am solo yi Serigne Mara la ñuy àndal ci seen émission Ahlou Khassida mooy sunu gan gi ñuy dundee ayca Serigne Mara nga gisee njàngum démb ak tey maanaam mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon jàng lu ci mel ni njàngum doolewu te tey gis nañ ne changement am na avancement am na rajo yi ñëw na technologie gën a avancé naka nga gisee njàng moom entre mag ñi ak ndaw ñi. njàngum démb ak njàngum sax daanaka amul espace. dafa am lu ci nekk lu nit ñi seetluwut ñu mag ñi bu njëkk dañ jànge doole la ko waraloon it mooy jàng daan gëjaam ku jàng tey bala ngaa jàng mën naa xaw def ay fan su boobaa da am kàttan jàngu xale yi léegi day gis ko xam ci bis mën na ci jàng ñetti yoon gis koo xam te ne mën nga ne weer yi bis de noppalu ñaar fan la ci noppalu day jàng te soo mu jàng daan soo mu jàng léegi nag kooku nga xam noonu loo koy defee day day jar mu defee ko na mu ko mane ndax dégg naa ci suñu xaym gi mu wax ne si Mourtala mas na ko wax ne ko di ko jàngaloo mu yéex a ñëw bi mu ñëwee si bi laaj ko ah, xam nga ah, foo nekkoon mu xamal ko damaa am fi mu ne doon fa jàng moo kon njàng foofu ngeen ci toll. moo ko ah, daa dafa mu tegloo lool moo kon nag dee leen ko defee ni ko mënee ndax la ci ëpp solo mooy fexe ba araf yi leer ta neex waaye daa yenn doole yi gaa yi proposé nii sax. moom daanaka solo si demee si noonu daal waaw. Ah, ndax boo gisee ñu ci bari dañuy faral di wax naan ngon mag ñi dañuy yuuxu gone dañuy fo mu ne kon kan mooy jàng eh, léegi dañuy faral sax di gis ci ndaw ñi comme ñu gis nituk àdduna koo xam ne mën naa am sax ya nga koy waxal ci ay bayit xamu ko maîtriser ko nga bëgg loo def sa poste tax nga seen ko ci bërëb boo xam ne jaaduwul sax ñu koy yëkkati lii di xasida nga di koy yuuxul xasida ngir lum la jox nga def sa poste ndax yooyu sëñ Mara ci la bokk wala loolu daf koy naqarlu waaw xam nga fi mu nekkum àdduna dafa tool foo ne lu nit def daanaka sax jëru laaj boo xool da nga koy gis ndax technologie moo avancé lu fu waay def rek dañ lay film fii lu nekk am na fi loo ci internet bi ay ñuy tuddee jànkat ñoo ko def su fekkoon ne maa ngi ci tamit dañ ma cay gis rek xam naa ne daal ñii ma àndal mën nañ ci seere ndax ñoom ñëpp kenn ku kenn koo xam xëy di tëdd sa kër amu ci ñi ma àndal ñëpp dañuy xëy liggéey man mii ñu ànd damay xëy liggéey su ma amee jàng ku si nekk tëj sa place ñu ñaan dem jàngi suñ paree ku nekk dalal sa métier waaw waaye kantaane di ko yëkkati koo xam ne waru ko yëkkati moom wax dëgg yàlla suñu toit dimbali bokku ma ci. xam naa sa moroom yi nga xam ne moom ci yooyu la yëngu dinañ ni sëñ Mara dafa metti dafa dooj <laughs> xam naa daal doy na ñoo ko gisandoo ñu ngi ci cappaandawu émission bi dañoo desee ci waxtu bi xam naa bariwut ndax sëriñ Mara ñaata son la génne ak koo xamante ni si bëgg naa am ay son boo demee ca fañ koy wëree naka ngay def ba am ko. waa mel na ne nag son yi li ma ci génneegun yaakaar naa ci ñett la tollagun muy assiru ak euh, Mame Diarra ak benn wolof wolofal Sëñ Tuuba yooyu tamit bi mu génnee daa gaay ko doon jaay macha allah tasaaroo na ko boobu ba léegi nag ñu ngi néegandi ko xëy na ko waaye ñu ci ab liggéey daal. yooyu da ko def woon ci sa man bopp wala dafa am ñu la jàppale ba nga mën koo def. waaw wax dëgg yàlla nag ci sa man-man bopp laa ko def. Euh, daanaka kenn jàppale ma ci lépp maa ko def rek. Mhm. ayca sa relation ak jànkatu xasida yi fari fi ci dëkk bi bu fekkoon da nga jël référence ki boobu léegi maa ngi koy jël daanaka boo ma dégloo lu ma wax Sëñ Xadim gi lay wax <laughs> moom wax dëgg yàlla moom laay jël référence ci lu bari ndax ci yar ba ak njàng mu set mi muy jàng ak mën a muñ gi nga xam ne dégg lu nekk ba pare ne pat moom yooyu yëpp ak doxin waag lépp nga xam ne wax dëgg yàlla du. question rek nga wala bëgg ko bëgg waaye nag ku waxtu yàlla taare xam ne macha allah moom ab yar ngi ci moom te aw doxinu murit ngi ci moom daal waaw bëri na nu ñu mën a jël du moom képp ñu bëree bëri ñoo ngi ci yoon woowu waaw waaye nag comme nekk di lim mënuma jël moom day wax ci. Mhm. acca ñoom ñëpp say nit lañ macha allah Serigne Mara acca ndax Serigne Mara jamono ji ñuy wax ak moom fan la bëgg ëllëg njàngum xasida ay yóbbu ko fa ak su ko fa yóbboo lan la pare pour defar ko am réewam. waaw jàngu xasaay day xanaa jéem cee top suñu tànk kilifa yeeg fi ci jaar ndax kenn ku ci nekk kuñ ci tudd ku ne am na foo ko fekkoon te suñu toit dimbali la nga foo ko yóbbu donte xasida moom fa mu nekk moom mënees su ko fekk sax ba ko yóbbu fenn waaye ci cadre turu njàng mi ah, te dañ olof day wax ne ku yokkut yaa wàññi te moo taxit boobu ba léegi nag ñu ngi ciy góorgóorlu suñu kéemtalaay kattan ndax suñu xayma bi déggu nañ ko lool waaye ginnaaw gi boo rey nit ba dégg ko. nga jéem a def ni mu def tamit wut sa yëf yi bopp rien que dolli te suñu tubaab dimbali na ci ba macha allah am na suñu air bopp bi ko defee tamit neex na euh, yi te wax dëgg yàlla ñu koy jàngaloo bu baax a baax a baax. Kanta nag li ma bëgg a def réew xëy nañ ñaan rek suñu tubaab dool ñoo dimbali euh, lépp ci kanam daal. yàlla baax na incha xam ne moom la ñuy tëjee jotaay bi su ko defee soo daaneelee nga daal di tàggoo. dox jox leen dig daje ci ba beneen yoon ay ci sëñ Mara ku mel nii ku ci am lekk moom ku mel ne Sëriñ Tuubaa wax ku lekk moom ne la wóor ne yaa tooñ ku mel nii ku ci am lekk ku mel ne Serigne Touba la wax ku am leeg moom na la wóor ne yaa ko tooñ ku wax lii yow ku am leeg moom ku wax wax ji ku am leeg moom na la wóor ne yaa ko tooñ si maamul wara xasiri لدى الله في يدي وما رمت من مالك خاد بناني كن كوخلي كتيام لك موم كوخ وخجي كوام لك موم نلورني يا كتوني su ngeen déglu woon tey ji mala biire baax nu naa ay wolof baaxul tërëy day sewal ku baax ku ci rëy bay ndamoo nii gum ndeyam baa baayam bu baax nu sew tey ndamoo sëriñ Tuubaa ngir moo fi xottik baax maam Bàmba bi may way moo fi wolof boo xam ne yaaram yaa amti ko nun dañuy fett ak cant ngir sëriñ tuuba moom moonu may nu jébbulu ànd ak moom nekkoon ba léegi noo ngi mooy ni yéefari ak naaw feq yaa ngi nii di mooy di woy te nun noo ngi ci lislaam nun di waaree ka di way jërë ngeen jëf soxna Mame Bousso. macha allah Serigne Mara ci wolofal bu am solo bi dañ lay bàyyi nga daal di tàggatoo. waa soxna Mame Bousso kon xam naa ñu ngi lay jaajëfal rek wax dëgg yàlla ndax ci jataay bi nga xam ne macha allah am nga ci yéene lool bi ñu sëñ Abdou Lahad géey boole sëñ Abdou Lahad Guèye fee ci moom tey ma koy baax di ko siyaare tey di ko sant nga xam ne moom suñ daara sama daara bàyyi nekkoon ba wàcc génn liggéey boobu ba léegi moom it wax dëgg yàlla loxoom dañu ci sëñ bi fu mu toll mu ngi fay feeñal addiim te it loxoom it dañu ci man mii ndax defe naa jotaay moo moo ko moo ko sabab moo ko moo ko dox ci lu ma yëgut moom tamit ñu koy siyaar baax di ko ñaan sëñ Tuubaa daloo ko kàttanal moom sëñ Abdou Lahad Guèye ah, di la sant baax yow tamit di siyaare sëñ Morwa di mi ma àndal ak sëñ Xaadim Dia sëñ Maam Mondoy ak waa kuréel bi yëpp bàyyiwuñ kenn xëy na bu ñu limee day daal di gudd waaye bàyyiwuñ kenn baax di ko siyaare di siyaare bu baax njabootu Cheikh Mar Absolo gi yëpp di siyaare sama sëriñ sëñ Cheikh loo di siyaare sama sama ñaari waay jur maa ngi jégu sax ñoom la war a njëkk siyaare leen ñaan suñu borom kàtt na leen wéral leen barke xasida yi di siyaare bu baax a baax samay mag sëñ Daam Lo sëñ Xaadim ak sëñ Adama ñu ngi koy siyaare bu baax ak euh, mboolem njabootu Cheikh Mar rek xëy na lim bi du du du du mën a kii ñu ngi siyaare ñëpp di ñaan suñu teg leen loxo barke xasida yi di siyaare équipe bu technique bi nga àndal nga xam ne macha Allah sawar na lool ci liggéey bi di la jaajëfal soxna maam Bousso jërëjëf. Ah, jërëjëf Serigne Mara ñoo ngi lay jaajëfal bu baax cant ak ngërëm daal di ñeel ci wuy si bi nga wuy si sunu woote bi ñoo ngi lay sant bu baax di sant sëñ Abdou Lahad Guèye moom nga xam ne ci loxoom la ko yàlla jaarale ñoo ngi jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo doon topp seen seen bi di Rafah TV ci émission Ahlou Khassida ah, may sant équipe technique bi ma àndaloon Serigne Amcha sëñ motola ñoom laa jàkkaarloon ci caméra bi soxna Mame Bissou Fall moo nekkoon ci eh, micro bi di leen jox dig daje suñu beneen jotaayu émission ci waxtu wi ci bis bi ci beneen jàngkat jërë ngeen jëf. Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse. ci xasida yi yi rek ci xasida yi rek kenn ku mën a bégale ci xasida yi rek xasida yi xaram bu tawaaf mbokk yi ku ne xam na ne tukki mënta ñàkk moo tax SBB seen Brésil business ca sawa Léopoldo ñëw ak xarañte ci wàllu billet avion song ko nag wàññi leen ko ba noppi taxawu leen billet avion moo xam Ethiopian Airlines wala Emirates wala Turkish wala Iberia wala TAP Portugal di leen xamal ni jàppandi na noonu ca SBB Brésil ngir foo bëgg a dem ci àdduna rawatina ku bëgg a jóge Brésil ñëw Sénégal wala jóge Sénégal jëm Brésil mën ngeen a jokkoo ak SBB ci numéro yii 519 880 88 04 68 wala 519 750 47 57 SBB moo leen di ñaanal ngeen tukki ci jàmm te dellu si si jàmm jàmm rek ci la SBB di dox fexe ngeen di tukki nu mu leen neexee tukki ba yomb lool ci yéen SBB moo ñëwaat di leen yëgal ni képp ku bëgg a def transfert d'argent ak virement bancaire yónnee xaalis si Orange Money Crédit Sénégal wala sax fay facture courant wala ndox wala fay wifi gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB BB Brésil si numéro bii 519 81 88 04 68 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent gaawal gaaw jokkoo ak Aliou Sène SBB Brésil si numéro bii 519 81 88 04 68 ak SBB njàqare jeex na ci wàllu transfert d'argent